mucc waaye ci mujjantal ba mujj na ñàkk bakkanam ñu ngi ci ligne bi ak way juróom bu góor di Alassane Diallo euh, sëñ bi Diallo ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi di la ma saw bu baax a baax. Ah, jërëjëf euh, ba laaj bi ñu lay njëkk laaj mooy euh, sëñ bi Diallo yëf yi fan la tollu jamono ji ndax mën nga ñëw waxaat tuuti yëf yi ni mu demee. waaw yëf daal man sàmm bi ci guddi lañ ma laa jël sama doom yóbbu ko hôpital El Hadj Ibrahima Niass ci benn poste de santé laa ko yóbbu war jax suñu wax war jaxal léegi ñu fa demee nag euh, euh, ñu xool xale bi daal ne xale suñu yóbbu ko hôpital ndax euh, zone zone moo ko daloon ndax feebar zone zone ñëw ci dal la ma avec ci am ambulance ma fa ci hôpital bi samedi guddi ay deux heures du matin ba ñeneen yi jël ko dugal seen faj di ko faj ñu dem ba jour Korité bi jaar ko tudd na si ndax lañ la juddoon le vingt cinq mai bu mu dul see si jour bi ci laa tudd ndax tuddee Souleymane Diallo sama xarit papa la eh, lañ ma woo ñu ne ma daal sa bébé bi ma ñëw di xëy si ba di nemmee sa bébé bi daal feebar bi dafa xam ne moo ne sa bébé bi feebar bi dafa xaw a garaaw trop fa dem ba ci bopp bi daal ak su yuur gi moo tax mu am problème noyyi mhm. waaye da ngay dem ba ci kanam tuuti nga ñëwaat après naa ma def ci biir xool dinaa dem toog bu ñu ma ñëwaat sama xel darut ma fekk ko beneen sage femme ma ne ko sama doom bi de laaj laaj ci ñu def mu ne ma loolu euh, ma man def ma sa doom daal feebar bi dafa xaw a garaaw mu nekk ci bopp bi daal moo indi problème nooyi bi daal hmm. ne loolu la wax ma loolu la ma wax waaye mu ne finalement nag bébé bi dafa décédé ma ne ko ah ma ne waaw sant yàlla ndogal suñu na yàlla moom mooy xañ na ma léegi xaar ma tuuti ma indi la certificat de décès ci laa taxaw ci bunt bi noonu xaar bi ñu certificat jox ma ko. Mhm. mu ne ma dangay dem xool kayitu hôpital yi ba nga koy boole dem ci bunt ba di defal la certificat de décès. ci laa dem noonu dem jël kayit bi ñëw boobu maa ngi xaw a nag.

ci la ñu wax léegi da ngay dem ci morgue ba da dem jël sa koor donc daa jëli foofu ci état civil dem ci morgue ba fekk ci nekk ci morgue bi ma ne ko man de sama sama koor laa ci dala jaar so mu ne ma waaw mu jël kayit bi bind mu ne ma tudd Alassane Diallo foo dëkk ma ko wax fu ma dëkk de ñaari fan la man ko douze jours la fi am mu ne ma góor la wala jël man ko góor la ci lañ euh, mu ne ma ci ne daa mel ni ñëw ci la moo nekk ci morgue bi ci la jël téléphone am woote ca fajaatri ba mu ne leen dala jaar ñëw na ñu ne non xaar na ñu ñëw dañ toog mu ne mu ne toog nañu patiente fii ci banque dañ toog patiente ay cinq minutes ñu gis waa ji ñëw def xale bi ci benn paquet carton euh, mu indi ko fekk xale bi mu ngi mu ngi nga xale teg rek euh, borom morgue bi woo ma ne ma seen corps mu ngi nii dañu ko dugal ci biir frigo yi noonu sax bu ñu ñëwee gis na ko teg ko taal war ko sànq jébal ko borom matière leew na yi ñu gis xale bi ne mu ngi dund maa ngi nag benn sama xarit bu tudd Moussa Cissé moo laal ci dox bi nag ma laal ko mu yuux ñetti yoon ñu ah c'est c'est grave lañ jël booy jël delloo ko pédiatre yi. Mhm. bu ma ñëwee fekk médecin bi ñu wane ko kii yi deew mu ne c'est pas vrai waxu leen dëgg di rajo laay wax sax mu ne waxu leen dëgg ndax yéen it yéen ngeen mel ay kookoo ngeen xamu leen dara foo yaakaar dem fa. Hmm. man moo li ma merloo sax man man ndax man nangu naa ndogal man taalibe la nangu naa ndogal xam ne yàlla yàlla yàlla mooy may mooy xañ xañ na ma hmm. man loolu loolu sa dafay faral def nit ñi te dem bëgg sax xam ne bu dee loolu dañuy faral dégg lu bari hmm. man foog naa ko jàpp du waaye ma ñàkkee teggin ak ñett war bu ma ma mooy li ma merloo ma dem loon porte ma dem ci rajo yi wax ko si ci média yi finalement bu ñu ñëwaatee nag docteur yi woo ñu yëpp ñu ne nañu waxtaan ñu ne ci gën a métti sax dañ maa dañ maa mu ne ma kii dinañ ko jël à fard danañ ko faj teeg seen bu soobee yàlla da nga gis seen seen doom yéen ñu dégg moom dañu loolu nañ bu suñu doom na na nataaw bi sam para yëpp ñu ñëw ñu waxtaan ñu ne waaw ba toog bu ay vingt-trois heures lañ moom ñu ne ma kaay xool rek dégg fekk dëkk carrément dese dina moom ma ñu war ma ko ba laal moom xam instant moom du nat nooyeetu ma laal lépp léam rek mu mu dese de mu doon tiitu métti ci man mhm. ma jébbal naa ko yoon may ñu wax nag Sénégalais yi lii def nañ na ko xam naa ne day fa keneen tamit moo tax ma yóbbu leen ci yoon yéen ñu yu métti docteur bii ni lycée euh, malade métti na métti jur sa doom nga jur doom ñu jël sànni ko morgue a métti sax buñ métti morgue bi euh, prévision yi defar ak pousse ci daal dafa teddee wet sax xam kooku de ku ñu defar ko sax waaye di laa man may xool Sénégal léegi loolu ñu ni mën a gisee loolu donc rey ko te deew te saa daal mbir mi noonu la seddee. léegi bu hmm. def liggéeyam. Hmm. Euh, euh, euh, Alassane laaj laaj bu mujj bi rek mooy yoon commencé naa def liggéeyam ba jamono ji am nañ kuñ ci teg loxo naam sax mënuñoo def dara ba tax seen doom dellu waat waaye tey lan lan lan moo leen mën a dëfal ci lii nii nga xam ne dund ngeen ko te mu nekk lu lu méttee métti. ñun daal li ma ci wax. docteur yi dañuy sàgganee malade yi dañuy sàgganee malade man su ma sañoon daal. Hmm. yoon def liggéeyam. yoon def liggéeyam ndax médecin yi ni ñu nekkee métti na métti na trop métti trop mi ngi def eh, eh, malade yi métti na trop métti trop. Hmm. waaw ndax su ma sañoon yoon def liggéeyam ndax ba ci am man ma jël. Mm-hmm. waa mm-hmm. docteur yi ñu ngi may woo wax ñu ngi may woo di wax naa ñëw sax ñu wax dama ne ko lii xëy naa ko jël bal yoon yoon daan na def liggéeyam. Mm-hmm. waaw est-ce que yoon déglu na ko ci. voilà c'est ça est-ce que est-ce que est-ce que déglu nañ la ci Chérif. ma ne procureur ubbi na ci enquête est-ce woolu nañ la yoon woolu na la ngir déglu la. bon voilà maa ngi nii yoon ñi voilà ji wax nañ boo demee ba lënd na nga xëy ñëwaat police centrale. maa ngi nii yoon ñi jëm police centrale foofu jëm wër ji ji. baax na baax na euh, jërëjëf Alassane Diallo dinañ jokkoowaat ak yow incha allah di la masoowaat encore une fois. Euh, hmm. di la jaale bu baax a baax di la sant di la gërëm. Euh, mu doon euh, Alassane Diallo kon moom mooy euh, bàyyu jaari muy xale boobu nga xam ne dañ koo déclaré woon ni dafa faatu yóbbu ko ca morgo ba ndeke faatuwul ca mujjantal ba mu ñàkk bakkanam Chérif ñuy waxaat ba léegi rek muy li xew ci bërëbu fajukaay yi ñuy wax ci mbirum asu soxna noppeeguñu bii tamit ñëwaat ci du ñàkk dinañ ci waxtaanaat ci kanam tuuti incha wala boog ci yeneen jotaayu xibaar incha allahu rabbi voilà yéeme na léegi léegi dañuy jàll ci page de pub ginnaaw si ñu dalal Daouda Mine